comme ñew ngeen dañuy nuyu mbokk yépp di nuyu mag ñi surtout di leen ñaanal yalla yalla sam leen nuyu suñu yaay ji fi tok ni ak euh, mbokam yi nuyu xaritu abibulaay ak ndaw ñi buñ leen nuyo nak dañ leen di nuyu ci turu délégation bi ñu andal yépp di ci le préfet du département di sante diko di gërëm ci taxawayam cant gogou nak ci man la joggé wayé monsieur le maire dégg ngén yéné bi mu amoon pour sant ko parce que ñu wara mëna mën lañ parce que bokku nañu ay jiko ci détermination ak engagement préfet and ak le sous-préfet and ak commissaire and ak chef de service départementaux yi ñu fekk fi sama rak di sama xarit di sama collègue it yàlla boole woon ci gouvernement bi te bokkoon na ci ñi ma gën a jege ci gouvernement bi loolu yàlla koy def li tax nag mu gënoon maa jege ci fullaam ak faydaam la ak wóor ci relation parce que li gën a jafe nag léegi mooy lu loyauté ci relation moo tax dama koy ñaanal yàlla moom tamit yàlla sàmm ko yàlla jàppale ko ba lépp lu ñu ko dénk buñ ci gis lu ñu naqari di nuyu Ibadou Matar Ba momi tamit di sante marem, ci taxawayam waye yit ci ngor gi mu and ak man di geureum Rama makki bo déggee mané buma waxé limay wax ba djébal ndialu président de la république damay délo micro yi wax ak xol ñom bokk nañ ci li tax ma nara waxé ci xol ci kaddu yi ma nara wax di jale waa Pikine wes yëpp mhm. waaye di Senegal. Sénégal euh, yàlla sak sàkk doomu aadama mhm. te waxtu ko neex la koy jël nare bu la naree jël li la waree war faj bu nekkee sa ron lal sax doo gis nit ñi mun nañoo am nit ñi mun nañ am pexe waaye bu yalla defee naree def lim mu def day nëbb xel wala mu tayal loo nit wala mu bañ a jaarloo ñi ko mën a faj fi mu ne waaye li am solo mooy nit bu fi jógee nit ñi mën koo seddeel baax surtout ñi ko xam mm. parce que ko xamul bu waxee it mën naa bari wax di wax waaye ñi nekk ak moom ñi ko yar ay waajuram suñu seddee ak mbaax rek war nañoo rafet njort ci moom kon dañuy ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana yàlla teg loxoom ci njaboot gi may leen xolu muñ kaddu yi may yëkkati nag kaddu président de la république la parce que bu ma fi ñëwee ñu ne ministre moom moo tax ñu may tudde noonu kon samay jéego ay jéegoom lañu te ki fi jóge ndaw la bu ñu amoon ci moom yaakaar kon bu fi jógee naqar la ci Sénégal naqar la ci président Macky naqar la ci ñun ñii ñëpp waaye boo amul pexe dangay delloo lépp ci yàlla te xam ne feebar bu lay jël ni ma ko waxee léegi feebar du kum dal nga dem waye bu la naree yobbu ala kuliya liñ dina la abi abibulaay nag miinuma ko waaye miin naa ko min na gërem Lamine cham dogo bu baax aussi mom tamit parce que ñi ma lim muy marem di Rama di Lamine ño tax ma xam abibulaay parce que dañ koy wax fuma nek am yermande ci mom ci li ko dal te bu ñu ko mënoon a faj-faj ko looloo taxit yàlla def lañ ca mënoon ca waxtu woowu ñu def ko ci waaye li ma jàpp moom mooy gannaaw naqar bu nit mën a am di jullit julliti moromam jóge fi mu nar a wéet na ñëpp xam ne seede yu baax bu baree ci doomu aadama yàlla da ko yërëm te nag nekkuñu pikin waaye ñu ngi xam li xew ci réew mi nit dina dund téeméeri at genn àdduna du am juróomi nit ñu ko ñu ko topp nit dina dund nag lu sakkanul lu ñu xeeb trop waaye bu génnee àdduna ngeen xam ne kilifa genn na li ñu gis fii keroog ci ci ci ci li fi ne ci ay doomu aadama yàlla du delloo ñaan yu mel noonu yàlla du def loolu yàlla ko am fulla la am na nit ñoo xam ne fu ñu daje buñ ñaanee yàlla def ko te lu ñu mën a bëggal nit ki nag tey fii ku mu leeroon ne boo faatoo dem àjjana te mu leer la doo fi fanaan kon bu ñu njortee njort gu rafet ne yàlla dina ko xare àjjana mu mottale ndawam defe naa ne lu xol tàng-tàng wala lu métti métti nañ delloo lépp rek ci sunu borom te ku nekk xool sa bopp man mii fii ma toog nii am na lu ma war a def te defuma ko ci sama njaboot sax parce que matale lépp yàlla rek a koy def kon na nit ñi delloo jëpp ci yàlla delloo xol yi te ñu ku nekk lu la naqari nga jël kurus ñaanal ki fi jóge mooy ëpp solo li ci des nag ci suñu yaay ji laa koy wax yàlla du teg nattu ku mu tànnalul boppam yàlla mooy tànn nit di ko teg nattu te war nañoo njort na yàlla kumu teg nattu rek mu lay dencal lu ko gën suñu yaay nga Abibula dem na waaye jàppal na tey am na beneen doom bu dugg ci kër gi muy man mii moo tax sax ma war dellu